ndaw soosu ngay wax. moom mu yoroon doole ji nekkoon ministre de. de la justice ba ginnaaw gi mu am promotion nekk ministre nekk premier ministre. Mhm. donc doole jaa ngi woon foofu kes ki qui s'est passé boobu Karim Wade président Karim Wade lii yëpp ñu bëgg di ko xëpp ci kawam ñoom amoon na latitude téye ko dugal ko ci kaso bi tëj ko ba saa su leen nexee ñu bàyyi ko exiler ko mu dem mais quest ki qui se passe ba euh, subitement rek de manière concertée ñu gis ne. donc am na loo xam ni commencé na daw te lii bettu ñu woon parce que am na lu luñ ci doon njor que du yàgg dara lu ni mel dana am. Mhm. moo tax ñun defuñu comme grand grand commençant. wala des débutants biñ ko defee ñeneen ñi ngi doon xaar ñu génn def riposte xamoon nañu ñoom dañuy génn ça on le savait. maanaam par rapport ak. Euh, li mu wax donc moo tax ça n'a pas euh, du gisaane mais la mu njortoon moo am dafa jàppoon ne euh, da ngeen nekk en discussion yéen ak régime bi et que in li ngeen bëgg mooy que ne Karim Wade dellusiwaat ci jeu bi yéen aussi ngeen soutenir une troisième candidature de Macky Sall peut-être nee li mu waxoon tey jii nii ak li xew nii nii seen communiqué bi wax ne yéen yéen a ngi ci affaire bi daf ko jox un peu un xam nga lii. c'est pas du affaire gisaane c'est la suite logique d'une situation boo xam ni lu war a am la lu war a am mooy lan nit ki boo ko tëjee ci kaso bi loi bi ne ku nu jàpp ci kaso bu fekkee ni dañ la tëj plus de trois mois wala muy sursis wala conda wala condamnation euh, ferme dangay ngay perte sa ay droits civiques dootoo mën a wote kenn du la mën woteel waaye loolu du ba ngay dee laf lay topp am diir goo xam ne buñ ca tollee dafay jeex Mimi Touré moo gën a xam ne loolu jeex na jeex na depuis août deux mille. deux mille deux mille vingt et un. deux mille deux mille mhm. donc loolu de précisément le vingt et un août deux mille vingt ca la lo cinq yi mat. d'accord d'après donc le rejet donc du. Mame Ndao lu des mooy nos 138 milliards de francs CFA a parlé aussi. maa ngi ñëw parce que loolu bu jeexee. kon Karim Wade soxlaatul muy laaj am na si kii laaj si mooy ku nekk su encore sous le coup. Mhm. d'une condamnation te matalagul cinq boobu. mais bu doon ci condition boobu la ñu nekk tey jii bu ñu wax am amnistie donc loolu mën nañu ca compter waale peut-être. sauf que amnistie bi dafay effacer waale ardoise xaalis bi aussi. waaw mais ñun comme on a dit hier laajuñu amnistie ki nga xam ni ba nuy jàpp mi ngi toog andil ko ñu tënk dugal ci kaso bi. moom moo taxaw ne Karim sa Wade moom ku setal deram la bëgg. Hmm. ku setal sa wi laaj nag ñu setal sa der dañoo tirimal sa der dañ koo gàkkal ñoom ñi gàkkaloon tilimaloon. ñoom ñoo ni Karim laajul dara lu muy ñu setal daram ñoom aussi ñoom ñoo ne Khalifa Sall nee na moom amnistie lay xaar. mais aussi euh, beneen bi ma ma ne foofu parce que ah. tamit euh, la les cent trent huit milliards xaw ma yi nga xam ne Mimi Touré mi ngi koy wax moom nee na sunu xaalis et cetera bi ñu waxee ni Mimi Touré moo doon l'instigatrice convocation wu Karim Wade moo manœuvré en tant que ministre de la justice wuti ay juge def ay commission rogatoire à travers le monde ba nu jël ko dugal ko ci kaso bi kooku ban ko waxee dafa ni temps yële dafa ni moom simple exécutante la woon. Mhm. waaye boo nekkee simple exécutante kon ka la doon wax bu xëyee ni ñun kat ka nga ka nu taxaloon te deful woon dara tey dañ ko fas yéene setal te ñoom la rek ci seen biir. da nga war a maalu li ci xam bëri na elle était au cœur du dossier. waaw moo tax moom xam au cœur du moo tax. nekk au cœur du dossier moo tax mu xam ni Karim amul dara luñ ko mën a reprocher. donc c'est quoi cette moom loolu lañ ko war tax na ba tax na la nga xam ni moo doon seetal le président Karim Wade. Mhm. muy rapport Banque mondiale parce que foofu yëpp dañu demoon wut fa. elle avait soustrait ce rapport là ci dossier yi. ah oui ah bien sûr loolu moom du ko weddi mais rapport bu ne mel nga dindi ko loolu même en son temps. Euh, feu. loolu c'est un délit feu Sidi Lamine woon nag que dénoncé woon nag que à travers un une publication donc de Walfadjri mhm. pour wane ni Karim Wade lii ñu ko teg du dëgg du yoon dañ ko condamné injustement avec une cour de manière injuste ba pare taqal ko tey jii heure setam jot ñu ne du ko fi sete waaw léegi nag yow mën nga dugal nit ki ba pare. mu génn deful dara àdduna bépp ne deful dara cours et tribunaux yi nga xam ne moo nekk à travers le monde amu fi fenn foo xam ni dem na fa ba nu débouté que amul mhm. fépp fu mu dem jox nañ ko dëgg